noo ko dara ji sëriñ bi bismillah mhm. ak tolluwaayu sëriñ bi. waaw léegi damaa bëggoon sax. Ah, sëñ Moustapha Kane sax tey day jàng. Ah, damaa bëgg mu jàngal moom lu leen ci neex rek. man zanna annaka tuhaakil basara. wal jinna wal malaka lal mubashara wal muntaxa daadun ilaa ngay jël. sëñ Ablaye jël bii sëñ Moustapha jël bii. loolu laa bëgg. damaa bëgg ku nekk jël. Eh, eh, bismillah sëñ Ibrahima fu la neex ubbi rek. fa la neex ubbeen kahbun wa azaanun wal busayri xabaraho wa kullum siruho noorun wa asraaru kaabun bu neexee da ngay jël nag wenn xab door a jàll kaabun nee na kaabun wa xasaanu ak xasaan wa busayri ak busayri xabaraho kenn ku ne jàmbaar nga ci way rasuulay kaabun wa azaanu wal busayri xabaraho kaabun kaambul kaamb wa xasan ak xasan al kenn ku ne baari nga borom xel mu lab nga da rafet tag rasule yi wa kullum kenn ku ne nag la nga way Moustapha rasulullahi sallallahu alayhi wa ay mot la ak sa kile ci leer fa mablaxul ilmi fii annahu basarun waaye day toloob xam-xam nag mooy xam ne rek mbindifu yàlla la moom rasulullahi wa annahu doonahu nee na xelum kese nag ak xalaatum kese taxut a xam daraje rasulay man zanna annaka tuhaakil bashara wal jinna wal malaka lan yu bashara ku jàpp la rasulay nit la juum nga fala taqiisu abdalaay bil fudala fala taqiisu bu leen tëkkale ibnu abdullahi doom abdullahi ji bil fudala ci gaa yi tedd yi innal kawaakiba yox fiihaa sinimaaru innal kawaakiba naka ay bidee daal yox fiihaa dana ko nëbb sinimaaru weeru xànjar mooy weeru am fukki fan ak ñeent lil mustawaa ñeel na Moustapha. lil Moustapha. ñeel na Rasulé sama sang ba. lil Moustapha. ñeel na Rasulé yi sallallahu alayhi wa sallam. am na wàccuwaay digganteem ak boromam. law bu ñu jëloon bindee fi teg ci balance jël rasulaay teg ci balance moom wat leen moom rasulaay raamal yëpp daw nañ sàkku ju ngëneel ko sàkku jee raama daw na sàkku ji alwara mbindeef yi nay la fadlin am ay ngëneel raamal mbindeef yëpp daw nañu wutir ngëneel ci dara ji rasulaay musriina lahu ñoom ñëpp nga yaram di dëlëf dëlëf di wuti ngeneel fuñ koy wuti ji wal fadlu ndek ngeneel booba inda xaraaru borom taa nee na ndek digg digg ngeneel mu ngi sax ci keppaar gu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kilta yadayhi ñaari loxom ya daal loxo bu ne am na jumu jëf jumu daan jëf moom sa sayun tulaasimuhu loxom ndajoor ba kat day jëf waaye aw yi aw yi rek lay jëf baslun loxom ndajoor ba day joxe wa basun loxom càmmoñ ba day duma ñi nooy loxob ndijoor baa leen waaye wa man jaaru ñi bañ ta kàccoor loxob càmmoñ baa leen di jox min al-ilmi ma lam basarun am na ci xam-xam loo xam ne mi mbindeef amu ko moom rasul yi aw jinnun jinni amu ko aw malakun malayka amu ko wasatu misxaaru dënam ba day ba bay fuur moom rasul yi ngir xam-xam lahu ladallaahi am na fasun borom moom Moustapha. sirrun secret. laa yu taaliwu kenn du yërndoo xam-xam ba ba di ko xam moom Moustapha. bil kaddi. nee na coono ngir xam-xam rasulay amul. wal ilmi. sakku xam-xam ngir xam-xam rasulay mantane. ruhbaanun wa axbaaru. ay foore ba ñu ni la di taxul am xam-xam rasulay. fal xaysu min sakbil. juudil barri. barri soo xajaleen. yàlla daal mooy dotti ko taw waame ci dara ji rasulahi sallallahu alayhi wa sallam jëme ko ci kaw. walay su xaabin. walay su xaabin li xawfin minhu farra. li xawfin minhu faraaru walay su xaabin gaynde goo xam ne dafa nekk ci forêt classée bi bu dajeeg rasulay day daw ngir daraje rasulay lahu min al-ilmi ma lam yawi am na ci ak lawet loo xam ne aw tund li mun a yëngu du yëngu rasulay moo ko gën a dal ci ak teey laqal aza fil bara yaa wawa sambaaru laaqal azar daje naag aw lor fil baraya ci bindee fi def ay xare yu bare waaye nag wax wa te moom sabaaru muy aji muñ inna rasula la sayfun yustadaaw bihi naka rasulillahi la sayfun jaasi la yustadaaw bihi ju ñuy leerloo ci darajam muhannadun min suyufillahi bataaru muhannadun jaasi ju ñu nammale min suyufillahi si jaasi yàlla bataaru jaasi la moom rasulillahi li kulli min jumlatil axyaar mboolem tànneef yi ci biir tànneef yi yàlla yi martabatun likulli min jumlatil axyaar mboolem tànneef yi suñu borom yi ay tànneef la ñu kenn ku ne am nga dara ji sa diggante ak sa borom lakinnama ahmadul muxtaaru ahmadul muxtaaru muxtaaru waaye rasulilaay ab tànneef ci biir tànneef yi suñu borom yi sala alayhi lazi yàlla yàlla julli tasal mool ci moom rasulilaay fil jahri yàlla mi ko biral ba ñëpp xam ne moo gën musalliman tibxa yàlla sunu borom sëlmal ci moom maa yaxwa wa yaxtaaru tibxa maa yaxwa wa yaxtaaru kenn na ko yàlla bëgg na julli te sëlmal ci rasulillah ak ñoñam ña nga xam ne bexti saa seen ci ak jégleel xanawaw sarafan ñoñam ña daal ñoo ak surafa ñoom ñoom ñooñu rasuulay li annahum lil wara ndax ñoom ñooñu ak saxaaba ak waa ñoo di ay sang ci biir bindee fii wasabil xuri ak saxaabaam ya way tedd ya man axraanuhum sabaxu ñi nga xam ne ñoo jiitu seeni maas isbaaduhum aajiru wal badu ansaaru ñenn ci ñoom kat dañoo gàddaay ñenn ci ñoom lansaar dañoo dëgg ma mun na wara lahum la <laughs> taxsiisun bi maa safiroo am nañ ak leen fa seen borom ñoom sahabatu rasul humu nujuumun li xawmin fii du jaasaaro ñoom kat ñooy bidéew yoo xam ne mbooloo moo xam ne dañuy jox ci guddi sahaaba yéen a leeral lahum lana laay tanwiilun safaay lalan sunu borom kat saafara na seen gàkk-gàkk ak seen naxar ñoom sahabatu rasul izaa yalal kulla adnaasun wa ndax seenu njàmbaar kat moo dàq tilim moo dàq ay ragg-ragg ñoom sahaaba yi bi nusxi ngir laay biir lil xalxi jëme ci bindeef yi wal imaani ak ngëm xat jubiloo ay jàmbaar la ñu turan ñoom ñëpp la si waxaf dine la si ahladu kufaaru la yéefar doon bëgg mu takk muy ak kéefar saxaabay rasul ñoo ko dettal taxawal diine lislaam wasafu wal ilmu wasafu ak baax wal xilmu ak lewet daban ci sax lil jëmi kama kaanu yu di mun a taqwan kaanu yu di taqwal xays suma daaru fuñ mën a nekk dañ naan saxal ak ragal yàlla ñoom sahabatu rasul laa siyamal xulafa ok nee na maa ngi way nag saxaaba yi maa ngi tàmbalee ci Babacar Sadiq ma Umarin maa ngi ko teg Omar ibnul Xataab Ousmaanu ak Ousmaan Waaliyun ak Sinaalin nihmal abraar waaye ñii ñoo di ay sang alayhimu dër yàlla nekk ci ñoom ridwaanul ngërëmul yàlla ilaahi kama ngërëm lu bàyyi ko ci yàlla xaddi sanaaru ñun ñi nga xam ne ñoo leer ci seen leer minu lanwaar